waa asalaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz Hadj Malick ñi lay nuyu bu baax a baax bu baax ñu ngi leen di delloo ziar bu baax di leen ndokkeel yéen ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp jërëjëf bëggoon xam lan mooy sa première réaction par rapport ak euh, gàmm gi nga xam ne def nañ ko ren te Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ko def ba tey Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha yore continuité bi gis nañ cours magistral bi mu fi def lan mooy sa première euh, réaction. waaw tabaarakallah xanaa di ñaanal sëriñ bi rek di ñaan yàlla ñu yàgg ko fekke yàgg ko taxawee. ndax fa tabaarakallaahu nu ko woy juróom doon defee daa gën a ñëw yokk yëf yi fa tabaarakallaahu ndax li mu wax ni fii ndigal lañ ci am mu ngi ëpp ñaar fukki at ñu di ko fi def fa tabaarakallaahu ci biir njàngale mi nag leçon yëpp génn na jàngale na ñun bi ñu nekk di màggal guddi yonent bi am na yeneen guddi ca xay bu démb ñoom ñëpp doon profitoo pour barkeelu ci guddi yonent bi jàngal nañu ci ay leçon yu la kenn mënta wax fu mu jugee fa tabaarakallaahu bi fa pare nag indi na situation réew mi wax na ci kër gi wax na ci tabaarakallaahu société bi global ak yi ñu war a changer ci ay comportement ak suñ fa bëggee egg nan la ñu def wax na sax ba wax ci wàllu bu ñu bëggee jariñoo politique bi sax réew mi pour defar ko dañuy dem baat bi ko yàlla jox muy hidaaya ñu teg fa suñu tànk te loolu rek génne na ci ay points yu bari fa tabaarakallaahu loolu lépp day wane ni nit ñi war nañ gën a saisir contenu bi ak sëriñ bi orientation yi muy joxe ci biir yooyu ak recommandation yi ñu fexe naka lañ koy jëlee ba jariñoo ko fa tabaarakallah loolu daal mooy première réaction yi nga xamee ni man nañ ko jàngee ci biir waaw ginnaaw bi ñu jàngatalee discours ba noppi lan ngay yóbbante suñu mbokk presse dañu gis la plupart bu yu mel ni passé dañu jël quelques extraits rek daf ko à la te li ëpp Euh, solo ci message bi la plupart duñ koy exploiter lay wax suñu bokk presse. wa xam nga mom presse mom li ci Serigne Cheikh waxone rek yalla mo leen jox mission bo xam buñ ko xamone namu toll dinañ xamni yonent lañu lañu ta wal ñu toogee xam wasanna lahumul qawla laallahum yatadakkarun mais ñëw rek programme yu melni nii Serigne bi li wax ci yonent bi ñu xey suba di la xaar nga tiitre ay faits divers wax yu mel nonu motax peut-être waxe na lu mel nonu pour ñoom it ñu xel parce que nag wala yu mursal la wala yu mursal bu waree jël responsabilité am da koy jël day wax fi réew mi toll. sans jéem a am kenn ku muy neexal loolu la dënnam yëg loolu la waxtaane loolu nag presse ci boppam ñu ñoo koy jël xool li ci positif ñu teg ko comme ay point jàngale ko au lieu que ñu ñëw rek dem jël wax yennat yi nit ñi coowaloo ko ba contenu bi mu génne loolu daal fa tabaarakallaa ñu leen koy moytandikuloo ñoom ñëpp ñu man ko moytu daal Xaaj Maalik ñu ngi lay jaajëfal di la wax kullu aamin wa antum bi xeyr